gan gi tey muy Bachir Fofana di journaliste comme ni nga ko waxee candidat déclaré tamit ca mairie bu Vélingara Bachir ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay Elisabeth. Mhm, di la dalal tey. Euh, waaw di nuyu soxna Fatou moomu ak seen i auditeurs. Mhm. dama koo fàtte woon def. <laughs> Euh, baax na euh, <laughs> fajaru bi la xam naa. doo rek xam nga yaa ma yee ay nelaw nag. waa di jéggalu bu baax a baax <laughs> doo rek montant caution bi. nañ ko waxtaanee woon sànq démb. Mhm. àjjuma ji ministre de l' intérieur waxtaan ak ay parti politique ñoom jëm ci caution. solution boobule waaye ñu gis ne dara euh, génn fa comme euh, solution maanaam benn montant fixé wuñu ko ngir boobule caution loo waral ne moo tax euh, waxtaan wi mujjewul en tout. waaw xam nga élection buñ koy dem dañuy ne parti politique yi ci bëgg bokk dañuy joxe caution. Hmm. caution mooy lan mooy xaalis booy teg. après ñu ne la bu fekkente ne élection législative la boo amee benn député. Hmm. ñu delloo la ko. bu fekkente ne élection présidentielle la bu dee def nga cinq pour cent ñu mhm. delloo la ko mhm. élection locale defe naa boo amee conseiller ñu delloo la ko donc sa xaalis la mhm. yaa ko fay teg pour wane ni yow mën nga prendre en charge te besoins yu lay yóbbu ci élection waaye nag woote bi bañ ko wootee du woon pour que ñu génn si ñu am montant dañ ko woote woon pour que ñii nga xam ne ñoo bëgg soobu ci jongante yi di ñëw muy gogank jongante gox-goxaat ku nekk wax nan moo jàpp ni lan la jàpp ni moo gën a yelloo pour ñu def ko caution mhm. waxtaan bi nag bëri woon na ay nit ku nekk wax na defe naa ko fa nekkoon ku ne ñaari minute nga amoon pour wax sa position mhm. montant yi nag dégg nañ montant bu ne diggante fanweeri million ba ci benn million dégg naa sax am na ku wax benn montant bu cinq cent mille muy téeméeri junni mhm. donc waxtaan bi du woon pour ñu am montant mais déglu xalaat nit ñi mhm. déglu na ministre de l'intérieur déglu na ko ba pare bu fa génnee day dem ndaxte moom itamit ci gouvernement la bokk te chef du gouvernement boobu mooy président de la république. Mhm. dina dem toog ak président de la république ñu waxtaan ñu xool ñu lan lañ jàpp ni mooy caution bu boo xam ne bii ni buñ ko tegee nit ñi war nañ ci gis seen bopp ñu annoncé ko. ndax foogoo ne tamit euh, wax nga ko am na ci cinq cent mille am un million jëm ca kaw ndax foogoo ne dinañ gën a yëkk ci baar bi. waaw xam nga nag gis nga man yëkkati baar boobu noonu man moom laa gisul njëriñam. Hmm. ndaxte ñu ngi jëm ci ay élection locale yo affaire de gox la. Hmm. te élection mooy moment bii nga xam ne bii nii moom lañ tuddee c'est des moments de respiration démocratique loolu mooy lan. Hmm. mooy maanaam élément événement la boo xam ne bi bu jotee. képp ku yoroon ndombal tànk askan wi dañ lay dee jël ndombal tànk boobu delloo ko askan wi. pour que askan wi xool ndax moom mii ñu ko joxoon lu mu liggéey yé mérité woon na ñu dellowaat ko ko. Mm-hmm. wala ñu tànn keneen indi wala ñu jëlee ko fi indi keneen. donc loolu noonu citoyens yi ñoo ko moom bu fekkente ne nag yow da nga am sa xalaat am sa projet nga ñëw ñu yëkkati baar bi ba nga xam ne mënoo am loo demee élection. Mm-hmm. boobu boobaa tam ñu ngi lool citoyens yi donc loolu moo tax caution war na am naam waaye nañ fexe ba mu doon montant boo xam ne bii nii képp ku bëgg bokk ci élection yi war na see bokk. loolu moo waral ñun si indépendant yi kañu fa toogaloon ou kenn si ku ñu fa toogaloon mu ngi tudd Demba Makalu. Mhm. moo nekkoon candidat mooy candidat fële mairie Mermoz Sacré-Cœur moom dafa proposé à ce que ñu bàyyi ko à un million pour les élections locales xaw ah, ma pour les mairies ak un million pour les départements. gisoo ne tamit euh, candidature yi nu ñuy gën di bëri dina am euh, maanaam dina cher pour état. waaw xam nga nag gis nga man seeraay boobu noonu. Hmm. la la ñuy lu tax ñu war ko relativiser état du Sénégal ci yeneen i mbir mu ngi ciy def lu gën a cher loolu. Mhm. tey jii nii gis nañ ni président la république jëndal nañ ko avion boo xam ne ñu ngi naan téeméeri milliards la jar. Mhm. léegi nag bu ñu mënee jël benn avion jënd ko pour téeméeri milliards mais waruñoo mën a jël ay milliards dugal ko ci élection loolu lan moo ci lu ci cher. Mhm. démocratie kenn du ko natt. démocratie amul njëg amul amul amul nattukaay mais am na njëg te njëg bi nag quand on se boo bëggee ne yow sa réew réew euh, standard démocrate la. Mhm. da ngay nangu lu mu àndal lépp. parce que nous sommes dans une démocratie représentative mooy maanaam képp ku yaakaar ni yaa moom yaa gën a féetewoo baatu askan wi laaj ko. kon dañoo war a nangu lool kon nag wax waxi naan dañuy yëkkati caution bi pour wàññi nit ñi woon bu boobaa duggatuñu ci démocratie dañuy dugg ci lu lu ma naan richocratie hmm. mooy maanaam dañoo bëgg ku amul alal ku amul doole doo dem ci ay jongante yu mel nii te tey jii nii am na ñoo xam ne amuñu alal mais ñoo ëpp xalaat wala ñoo gën xalaat ñi am alal kon nag nañ ko fexe ba def ko montant boo xam ne bii nii ku si nekk ku ko mën war na si mun dugal boppam. te mhm. état tam na pare pour jël njëg bu ci war dugal ko ci élection yi parce que si yeneen i mbir état dugal na ci lu ëpp budget élection. sànq ñoo ngi wax ni caution bi ndax du doon barrage pour yenn euh, candidature yi kom yu mel ni yu indépendante euh, yu mel ni yéen euh, tey mhm. nga ne ñu am na yeneen ndëgg sërëx yi nga xam ne teg nañ ko ngir ñu baare leen la route comme moo bi da koy ne nga sawaroo ci muy parrainage bi fu ngeen ci toll. waaw xam nga euh, ñoom politiciens yi ba ñu toogee di toggaat seen code électoral bii ñu génn. Mhm. dañoo xëy ne élection locale yii ñu jëm. Mhm. képp ku nekk ci parti politique soxla woo parenage mhm. kon nag képp ku bokkul ci parti politique mooy ñun suñu classe yi nga xam ne bokkuñu ci parti politique te dañoo dañoo am yéene pour doxal suñu dëkk. ñun ñi ñu nañu il faut ñu dem uti parrainage. donc loolu moo nekk benn ndëgg sërëx boo xam ne déjà indépendant yi ñu ngi koy dund. bu boobaa nag léegi boo bëggee jël loolu dolli si ak caution bu cher. Mm. mu doon beneen mbir mais loolu noonu mu ngi mu ngi fii parce que man la may wax toujours moo di ne. Mm-hmm. mbir bu ñu ko tegee nañ ko tegal pour ñëpp wala ñu dindi ko pour ñëpp. mënoo ne parti politique du ñu dem outil parrainage nga bëgg indépendant yi outil parrainage te parrainage bu ñu lay laaj c'est un pour cent du fichier électoral euh, commune booy booy wóotu. Mm-hmm. donc loolu noonu mu ngi nii mu nekk benn dëgg sa def nit ñi. gis ko di xool ñu ciy génnee ñenn ñi dañuy dem uti parrainage ñenn ñi comme man dañoo ne dañ ci sonal seen bopp dañuy dem uti récépissé parti politique parce que loolu moo lay gën a noppal ndaxte Sénégal fu mu toll ni am na trois cent parti ñetti téeméeri parti ak lu teg am na ñoo xam ne boo boo demee waxtaan ak ñoom ñu jox la seen récépissé nga dem présenté ko nga dem élection. kon daal mën nañoo jàpp ni ba euh, Bachir Fofana dina am ñu mu àndal. waaw loolu yàlla day am. waaw ay waay politique ak comme ñu bañ a nekk aussi waay politique ndaxte lu am ba am moo di ni ñaar la. Sénégal moom boo bëggee dem élection faw nga nangu am ñoo àndal. ak mhm. fu ñu mënti jógee nag dañuy jóge ci parti politique yi comme dañuy jógee ci yeneeni parti mais ñun ñu ngi waxtaan ak ñëpp ñu bokk ci nguur gi ak ñu bokkul ci nguur gi ndaxte ñun boo demee Vélingara lenn mooy sunu particularité mooy ñuy bokk ci nguur gi ñoom seen bopp ñoo bëggatul ci maire bi ndaxte def na fa ñaar fukki at. Mhm. donc tey jii nii ña nekk foofu noonu te bëgguñu ànd ak maire bi ñooñu pare nañ pour ànd ak ñun ña nekk si kujje bi tamit am nañu pare pour ànd ak ñun donc ñun dañuy dem coalition parce que la ma doon wax sànq récépissé boobu juste pour déposer que sa liste la mhm. mais boo waree dem élection da ngay dem coalition te di nga dem coalition ñoo xam ne ñi yéen bokk gis-gis yéen bokk bëgg-bëgg et puis bokk ànd liggéeyandoo dëkk bi et justement ci euh, euh, di ko euh, Karim Wade Khalifa Sall ak Sonko ak euh, ñeneen euh, tey ji euh, lan mooy chance coalition boobule bu dee taxaw na. waaw xam nga une coalition bu mel noonu ak beneen coalition. Uh-huh. mën nañ am chance fii mën nañ ko bañ a am feneen. Uh-huh. ndaxte damay sama analyse maa ngi koy commencé ci élection présidentielle bii jàll. Uh-huh. élection présidentielle bii jàll. gis nañ ni boo génnee candidat Macky sàll Ousmane Sonko moo nekk deuxième a Dakar. Mhm. donc tey jii nii bu Ousmane Sonko àndee jël dooleem jox ko boole seen doole moom Ousmane Sonko xalifa euh, sàll mooy taxawu Sénégal Karim Wade PDS mën na leen may doole fii ci biir Ndakaaru pour ñu jàmmaarloo xëy na sax am mën a gagné fii nii. Mhm, mhm. nga def coalition bu mel noonu ci biir Ziguinchor nga xam ne région de Ziguinchor yëpp Ousmane Sonko moo ko gagné woon. ay candidat am bu ñu àndee ak waa PDS ak ñeneen mën na leen may chance. Hmm. mais ci yeneen gox boo xam ne fii nii ñoom waa Pastef wala yeneen foo ruñu fa mën na am foofu lool tamit du fa duñu fa am chance boobu mais lu mu ci mënti doon. élection yi moom c' est des élections ouvertes ay coalition moo ciy dem te nag donc c' tout à fait normal. Mhm. tey critiques yi euh, bëri na joge ci opposition bi ñenn ñi nee nañu sax dañoo trahir ñii nii ñii nii euh, nga xam ne ñoom la tudd euh, ci boobule coalition dañoo trahir opposition bi ndax li ni mel ànd nga ci. waaw critiques yi man damaa jàpp ni lu si ëpp Ousmane Sonko moo ko moom. Hmm. ndaxte Ousmane Sonko moo fi xëyoon taxaw posture. posture radicale posture antisystème moo ko fi mhm. taxawee woon mhm. ndaxte dama leen di jox ay firnde fii la taxaw procès Khalifa Sall ñëw mu ne procès Khalifa Sall c'est le procès du système contre le système fii la Karim Wade génn kaso woo ko jëlu ko parce que nee na Karim Wade lu bokk na si ñu yàq réew mi fii la taxaw mu ne président de la république jii ni dagan na nga dajal leen boom leen fusiller leen fii la taxaw élection législative ñëw mu ne ñun du ñu ànd ñoo xam ne amuñu ay loxo yu set xam nga yooyu yëpp boo ko waxee tey nga dellu si ñooñu nga xam ne tey jii nii ñoom la ñu jiiñoon lu ngay tudd noonu nga bëgg a ànd ak ñoom alliance électorale. Mhm. alors que yow sa sa positionnement leneen la woon di na jaaxal ñu bari moo tax critique dina critique yi dina bëri ndaxte critique Ousmane Sonko yi da nga koy jël méngale ko ak lu Idrissa Seck lu ko daloon ba mu demee fekk Macky Sall. Ah. ndaxte Idrissa Seck moo fi taxaw ne fasatuma yéene ñu may fal lenn ci décret. ba mu demee ba ñu fal ko. Mhm. kon nag la la daloon Idrissa Seck tey rek moo dal Ousmane Sonko mais dans tous les cas noonu lay demee. tey nga doon euh, candidat déclaré ca mairie bu Vélingara euh, lan la Vélingara di xaar ci Bachir Fofana. waaw xam nga Vélingara d'abord dafa jox lépp Bachir Fofana mm-hmm. ndaxte man samay jur sax fa la ñu soxee foofu fa la ñu juddoo mm-hmm. dama fay dem bu ma leen wax may leen man sama papa buy wut extrait de naissance fii la koy wutee kon ñun foofu la ñuy cosaanoo mooy suñu cosaan mm-hmm. donc Vélingara boobu noonu mu nekk dëkk boo xam ne lu ñuy wax position carrefour la am ndaxte ci benn côté bi Gambie moo nekk ci kawam benn côté bi Guinée Bissau la benn côté bi Guinée Conakry leneen li tam nga mun ko wax nga ne Vélingara bokk département bi nga xam ne moo am marché bu gën a rëy ci Afrique de l'Ouest hmm. moom la ñuy wax luuma jawbe hmm. ci beneen côté bi nga ne Vélingara am na événement religieux bu gën a mag ci Afrique de l'Ouest daaka Madina Gounass bi hmm. donc yooyu yëpp boo ko jëlee nga boole ko nga gis ni am na ay potentialité yoo xam ne Vélingara waroon na ko jëfandikoo waroon na ko jëriñoo ba xëy na mu weesu fii mu toll tey mais malheureusement nekku fa weesu ko lu tax parce que maire bu fa nekk ça fait vingt ans maire boobu noonu xëy na comprendrewul enjeu yi wala xëy na xamul lu mu koy liggéey wala xëy na gisul ba ban yoon la war a jaar ba ñu saisir ñu capter opportunité loolu yëpp moo tax nag ay nit yu mel ni ñun. ànd ak seen xarit ànd ak seen am di jàmm ànd ak seen mbokk ñu ne ñun tamit dagan nañu laaj baasu askan wi parce que dañoo am projet de société pour Vélingara mhm. tey projet de société boobule justement euh, ñu bëri xamuñu wala yàgguñoo gis lu dul politique yi ci terrain bi ndax jàpp nga ni Vélingara euh, ñu ñëw ànd ak yow ci euh, li nga leen di proposer surtout ñuy gis ay visage yu bees comme ay candidats yi. waaw waaw dëgg la xam nga am nañ ci yaakaar. Hmm. ndaxte. yaa ngi dugg si biir nit ñi di wax ak ñoom di waxtaan ak ñoom donte ne nag c'est vrai que nag ay homme de média lañ ay homme de communication lañ mm-hmm. mais dañoo préféré opter bañ a wax wala fësal lu ñuy def. Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi ñu ngi siy liggéey. si kaw loolu noonu ngay gis tamit yenn ay jëfin yoo xam ne maire bi mu ngi koy doxal mu wóor la ni kon xëy na la ngay def yëngal la ko la ngay def tiital la ko ndaxte tey ji nii am na benn programme bu ñu tuddee FERA. Mm-hmm. Fonds d'entretien routier autonome programme boobu noonu dafa jël ay jigéen di leen liggéeyloo ci biir commune Vélingara pour ñuy nettoyer di bale mbedd yi tali yi surtout mais tey jii nii femmes yooyu noonu di fa liggéey le maire les menace maire bi da leen di xoqatal xoqatal bi mooy lan dafa xëy ne leen bu ma wootatee réunion politique képp ku ñëwul xamal ni dàq naa la ñu ne déetawaay mu xëy si réunion politique boobu yëkkati ay fiche yoo xam ne photo moo si nekk logo APR moo si nekk mu ne yéen a ngi nii ku si nekk sas naa nga indil ma fukki nit ak yow muy fukk ak benn donc boo ko jëlee ci deux cent soixante dix femmes muy ñaari téeméer ak juróom-ñaari fukk. Mhm. jigéen mine de rien il peut se faire un électorat de trois mille électeurs ñaari junni nit ak lu lu ko topp. Mhm. donc voilà ay manœuvres yoo xam ne tey jii da lay won ni moom mii doon maire tey naam def nekk na fa def na temps. Mhm. mais tiit na ndax ay ndaw yu mel ni ñun ñëw nañ pour gën a liggéey dëkk bi te loolu da ko tiital ba mu ngi menacé ay ñëpp. ñu lay jaajëfal bu baax a baax Bachir Fofana. jërëjëf Elisabeth maa ngi leen di nuyu di leen sant encore une fois di leen gërëm ci invitation bi ni si opportunité bu ñu may pour ñu waxtaan ak seen i auditeurs di leen ñaanal yéen du